xaadim mhm. ci photo boobu la ñuy taxaw muy audience bi euh, lan lan lan nga ko gisee. non en fait moom laay wax rek la politique c'est une affaire de gentleman parce que euh, ku wor coalition Yewwi di nga waraat coalition bi nekk fii ñi ñi waroon Abdoulaye Wade ay ànd ak Macky Sall tey dinañ ko war bu bu Macky Sall wàcce naturellement y a yoo xamante ni ci nii la ñu bëgg a dundee. Mhm. mais palais dafa sacré euh, te palais institution la. président dafa sérieux parce que man su ma enveloppe bi bu dee président joxu ko ko waaw bu yoroon pistolet ci biir enveloppe bi nag dañu bàyyi suñu président nit mën a dugg ak moom ak chemise am bi ñaaw bi teg teg teg teg enveloppe bu toll noonu ci wetam. xam nga xam yooyu du du lu xel antenne président mënoo dugg ba accès ci président de la république am loo yoral loolu mënul nekk ku xam pale nu muy fonctionner xam ne mënul nekk. Ah. mënoo dugg ci palais am dara loo àndal il faut que ñu ñu yéeg a yéegawaat ba nekk ci niveau événement bi Sénégal c'est un grand pays. Mmh. Sénégal administration diplomatie ñi liggéeye Palais Palais Palais camp camp militaire la kon camp genre ay gendarme ñoo fa nekk c'est un camp du caaxaan nit munu faa ñëw nii mais président ci boppam fi mu toll ak fi ko sénégalais teg ëpp na ëpp na di recevoir koo xamante ni dafa wor ay nit pour des raison ça va montrer que c'est pour des raisons financières. te ki ñu ne moo ko fa indi am nga ñooñu bu ñu jaaroon ci parti sax ñu xam lan mooy culture politique xam mais sa man li ma gën a metti du waaj de li ma gën a metti mooy ñi nga xamante ne dañoo sonn ci parti au pouvoir Macky Sall jaral leen lu nekk lu ne ñu daj ko amuñu li waaj am. am na ñoo xamante ni sept ans yëpp gisuñu Macky Sall lu dul ci ay meeting envol bu ñu jox waaj du ñu leen ko jox ba ilaa yu meeting et pourtant Macky Sall la ñuy xeexal guddeeg bëccëg. et c' est ça qui fait mal c' dire que politique mais bari na ci ñoom aussi ñu ko ñu ko décrier. mais mais bari na ci ñoom ñu ko ñaawlu. parce que li leen metti mooy. mais waa ji mooy kan ba war a ñëw en moins de 72 heures am lii lépp ci parti bi te ñoom ñu ne ci 7 ans <laughs> amu amuñu ci dara moo tax politique affaire de gentleman la gis nga am na ñoo xamante ni mënuloo leen defal dara mais yëg leen yëg leen mais lii insulte la ci beaucoup de militants de l'APR yoo xamante ni sonn nañ ci parti bi am na ñoo xamante ni xëy na ca fañ dëkk ci Matam xeex nañoo ak waa ji xuloon nañoo ak waa ji ñu bàyyi leen fa ñëw jël waaj yi indi ko pale jox ko xaalis waaj yi dem léegi waaj bu ñëwee nan la leen di xoole yéen seen waa parti sax wu wuñu leen yéen fi ngeen doon toog di jàppale Macky Sall man may contre Macky Sall <coughs> man lañ jël man lañ yóbbu man lañ jox xaalis man maa ñëwaat mhm. te boo deful nag mën nañ ko jox yeneen responsabilité cest à que il faut que ñu xam ni politique li defar askan li defar cité bi ci politique lay jóge donc homme politique yi ñooñu mën a jàppale ba xale yi ndaw yi màgg ba ñu jël exemple yi xam ne politique boo ci duggee da nga choisir defaral liggéeyal sa askan mais ko gis li ku nekk da ngay jàpp ni politique raccourci la pour am xaalis ku ci nekk lii da saaga ba ñu dégg la nga dem jël raccourci bi ñu jox la xaalis nga dem et man je sama xale xalaat yëpp day dem ci les premiers militants de la pere l'APR liñ liñ ci daj li ñu sonne ñooñu ñu métti bu ñu nar a dëkkee seen xol parce que en réalité amuñu lii waa ji am parce que te lii président war a signé journaliste ko étudiant est-ce que du chèque <laughs> parce que bu dee chèque <laughs> ça va être am am enveloppe boo téye te lii chèque c'est ça qui fait mal c'est-à-dire qu'on privilégie quelqu'un koo xamante ni mi ngi soog a ñëw ci benn parti en moins de 72 heures am lii lépp am ñoo xamante ni 9 ans ñi ngi xeex ci parti bi amuñu dara mosu ñoo toog ak Macky Sall mosu ñoo am dara loo xamante ni Macky Sall jàppale na leen donc il faut que ñu jàppale xale yi ñu xam ni politique defar sa réew la sacrifice la ni da ngay defaru ba pare am xam-xam am njàng am lépp ñëw pour servir ce pays mais bu bu ñu ko defee raccourci bi ku ne dangay jàpp ni sa politique nga war a jaakaar pour régler say merci beaucoup Khadim Bamba euh, ñu des ci week bi ba tey parce que lii ñu wax ni samedi la dimanche bi ci la ñu dégg itam keneen muy euh, Gaston Mbengue ñu xam ko bu baax ci wàllu wàllu bu bëri wàllu sport en général euh, mu yëkkati ay kàddu donte retiré na ko sax mu nekk ay kàddu yoo xam ni bi mu ko yëkkatee ñu bëri ñaawlu nañ ko wax ko ci famille Diaz ba nga xam ni indi woon moom itam toole bu doy waar Euh, maître Moussa Sakh yëg nga kàddu yooyu bi nga ko déggee noo ko déggee. waaw yëg naa ko comme comme tous les sénégalais euh, di ko ñaawlu xam nga ñu suñu réew dafa am lu koy mandargaal mooy notre vivre ensemble ça c'est une particularité bien sénégalaise booy tukki dans la sous-région yàlla sutural nañu dem nañ ci réew bi sous-région bi yëpp. Mhm. di wër ci àdduna bi loolu particularité sénégalais la mooy notre vivre ensemble suñu teraanga. Mhm. nga xam ne mënoo xam kii ban waaso la bokk kii ban xeet la ñëppay kaf di ree di sëy suñu biir bañ a bokk tarixa ba a bokk diine te seq jàmm donc boo gisee wax ju mel noonu mënoo lu dul ñaawlu ko parce que dafay porter atteinte li ñu am de plus cher mooy notre vivre ensemble kon mënuñ ko rafetlu et ça peut porter atteinte à notre cohésion sociale à notre pays civil maintenant du moom rek moo fi wax lu mel noonu dérapage yàgg na fi c'est que pam Ngagne encore une fois gis nga li indi lii mooy la ma wax ci njëlbeen suñu nekkee ci réew moo xam ne nit ñi dañuy jalgati yoon te dara du leen ci fekk coow li du fi dakk avant loolu am na ñu ko fi wax wax ju mel noonu am na benn député bu fi wax nañ jël ay jaasi est-ce que mujj na fenn am na benn jeune fille oui am na benn jeune fille bu fi saaga ne képp ku bokkul ci tel ethnie nangam mm-hmm. léeg-léeg aussi nga dégg ñenn ñu bokk ci opposition bi wax wax ju ñaaw mais yoon du def liggéeyam mm-hmm. kenn du leen jàpp à partir de ce moment dafay mel ni loolu dañ ko daganal dañ ko légitimer tey wax ju ñaaw. non boo nekkee ci opposition bi moom. dañ nga am jafe-jafe. parfois non non parce nañ fi ku mel ni Ami lu mel noonu ci président Macky Sall. may ma Pape Ngagne. boo nekkee euh, ci opposition bi moom en général ci opposition wax lu ñaaw mu jëm ci nguur gi. waaw da am mais même. am na ñu na laa wax ñu ne ci opposition di wax lu ñaaw ñu jëmale ko ci ñeneen man bu may wax si de manière générale li leer ba leer boo nekkee ci kujje gi wax lu ñaaw mu jëmee ci njiitu réew mi dañ lay téye mais jeu dis au la de ça am na ñenn ñoom dañuy wax lu ñaaw mu jóge ci ñoom dem ci c'est que wax ju ñaaw dañ ko warul nangu ci réew mu civilisé ci état de droit ci démocratie mhm. démocratie li mu laaj mooy débat d'idée mhm. débat de programme dama ne bu nekkoon ne ñëpp ñiy wax lu ñaaw bokk ci nguur gi ak ñenn ñi ci kujje gi ñi koy jëfi tamit yoon dal na seen kaw kon du fi sax mais kon que ñooñu def nañ ko dara fekku leen ci ñu koy defaat kon dañ koy ñaawlu et que na état bi jël ay responsabilité tout à fait réew boo ko buggee defar mhm. da ngay teg njoboot gi yëpp ci yoon yemale leen bennale leen mhm. soo ko deful du ñu jóg ci caw effectivement Khadim ci propos Gaston Mbengue yi man yow man j'aime bien la la télévision Walfadjri mhm. mais Walf aussi ëpp na loolu euh, affaire bi différé la parce que am na télévision boo xamante ne Walf li mu représenté ci Sénégal am na loo xamante ni télé bi am na benn responsabilité bi mu am ci propos yoo xamante bu doon en direct moom moo responsable euh, euh, Gaston mais différé moo nañ koo dindi la deuxième chose mais Pape Ngagne Gaston à part lamb loo koy invité lan la lay wax Gaston lu mu xam ci yokkum ceeb bi lu mu xam ci ça il faut il faut que presque bi tamit euh, remettre en cause parfois yenn mbir Gaston lan la lay wax ci ci ci ci politique Sénégal lu dul saaga wax ju ñaaw kooku nag buñ koy tendre micro à chaque fois day dem ba waxam jeex te wax bu bëree rek génne asaka donc à un moment donné bu demee ba amatul argument mais day wax wax joo xamante ni ça peut frapper man je ne sais pas à part la lutte lan la ñu war a mën a xaar ci Gaston mu eh, mu analyser lu ñu réew mi nu mu mel wala mu wax ñi grève bi nii lay demee wala mais Gaston milité wul Dakar politique wul Dakar yoonam nekkul ci waa dakaar mais na bàyyi Ablaye Diouf saar waa këram ak euh, euh, Diaz. xaritu euh, président Macky Sall Bartlim mais bu dee xarit lii local la local nawetaan la affaire de koñ la na bàyyi waa Dakar wax waxi waxi Dakar waa.